waaye alhamdulilah alhamdulilah ni sàngara ni cigarette ni gain ci lu ma jàng man la ko wax mhm. sàngara cigarette gain ak gone koo xam ne day jël day jël lu moom day mhm. moom mais su fekkente ni yàmbaa

jokkoowal ak ñun. lu xew TV xibaar yi te wóor. allo Sénégal na ngeen def ci Khadija Espagne maa ngi leen di nuyu waa maîtresse yéen ñëpp kontaan naa trop trop trop ci seen série bi kontaan trop waaw man dafa am rek lu ma metti ci Sénégal. Ehm, si dans le monde daal léegi daal nit ki bu amee secret rek dañ koy weer waa loolu mooy lan kan moo amul secret si àdduna comme ni koy sénégalais di waxee ku nekk boo nekkul si bu gudd bi yaa ngi si bu gàtt bi man daal am naa lu ma metti trop surtout ma góor naka la mën a taxawee di tëkku jigéen naan ko dama lay weer dama lay yàq man daal affaire bi métti na ma trop trop trop ndaxte. ak lu ma mënti métti si àdduna lu ma mën a métti métti nit ki déli bu mu mën a def si àdduna rek kenn waru ko weer ndax suturoo dafa baax si doomu aadama waaw man nag Marème avant muy avant muy marié ak Cheikh daf ko waroon wax passé mi yëpp ndaxte àdduna dafa gudd tànk ba nga xamante ne bi nit ki booy booy dugg si sëy ndax sëy dafa sérieux boo siy dugg rek yow wax waxal sa bopp fi nga jaar ak lu mu métti métti rek waxal sa ki ngay sëyal fi nga jaar bu fekkente ne bëgg na dina si ànd ak yow bu fekkente ne bëgg na la dëgg dina si ànd ak yow mais nëbbu bi daal waru ko woon a def daf waroon wax seex yëpp mira xoolal su fekkonte ne wax na ko seex euh, instant bi du ragal du def dara seex bu ko déggee danaan ah Mariam waxoon nama ko waa comme ça mu nekk en l'aise daal mais ay xaritu euh, wujjam di ko jàppale man daal métti na ma trop nit kenn du ko weer si àdduna nit kenn du ko weer sutura dafa baax sutura dafa baax si doomu aadama kenn du weer nit si àdduna ndax dafa ñaaw ngay weer sa moroomu doomu aadama ndax dafa am secret wali lan la dafa am secret secret boobu dañ koy génne dañ koy dañ koy yàq loolu baaxul loolu baaxul man daal métti na ma trop marem daal man su ma doon yow nga toog ah, nga toogal nga toog yàgg seex ngeen waxtaan ah, nga wax ko sa passé parce que adduna bi moom ñëpp am passé ku amul passé rek judduwoo woo ñëpp am passé te boo juddoo kenn kenn mësul juddu ba nga set ci sa yaay ci sa papa famille benn benn famille setul benn famille setul man daal Sénégal man métti naa métti na ma si si loolu trop góor bu bu taxawee naan jigéen dama lay weer dama lay weer loolu dafa dafa ñaaw métti na ma trop trop trop trop mais maram daal maa ngi koy jox encourage mu waxtaanal ak jëkkëram parce que même bu ko waxoon kaa bi yëpp wax ko ne ñu ma si tëkku naan dañ may weer ak yooyu xëy na jëkkër ji dina seex dina ko jàppale dina ko jàppale trop trop trop trop mais man daal loolu laa si amoon si lu may wax E suma ma jumee ngeen baal ma c'est Khadija Espagne kontaan naa waa maîtresse kontaan trop trop trop trop waaw ok maa ngi leen di jox bonne journée euh, bonne fête de août <laughs> ok ciao merci. waaw asalaamaaleykum waa Lu Xew TV nuyu naa ku nekk turam ak santam di leen siyaare man xam naa ne lii du sama habitude la première fois ma door a dugg ci lu mel nii pour participer waaw ci benn feuilleton bi daw 2STV sànq dama déglu audio bi dégg benn femme buy interview waaw ak xëy na ni film bi dindee moom nag li ko neex c'est wax na wax na boppam dafa far mère Dial nee na far aayul moom nag daa far dafa bëgg Marème moo tax dafa taxaw pour nekk avocat Marème mais man li mu wax yëpp ànduma ci moom ci lenn c'est xam naa ne dafa jël Marème taf ko en tant que góor laa nekkul ne dama jël dama faree côté non kum doonoon ci yéen muy jigéen du la neex ba yow mi wax sànq nga nekk ak sa jëkkër dëgg la musulman la takk ñaar aayul ñett ba ñeent nee nañ ko teg ci yoon yow ci wax bi nga baal ma bëggoo nekk sa marié ba dara dul dara mu jëm dajeeg benn sàmba boy ma jégalu ci wax bi ci mbedd di ko doxaan indi ko sa néeg indi ko sa kaw lal fekk fa ak lu ne fekk ko fa ak moom bis ñëw am takk ko kooku ñëw nara ak yow ci biir kër gi dëgg la ku nekk am na passé ku nekk am na passé mais xam nga tey passé bu mel noonu kenn ñaanul ko yàlla suñ ñëwoon nag lal woote jàmm mais yow leer na ne Marème dafa ñëw pour am lu muy dawal diggante moom ak Lalla parfois mu woote jàmm mais olof nee na ñu bañ démb bu ñu nangoo tey seeni pexe moo jubul Marème bu demee ba nar a retourné pour woote jàmm ak diggante ak Lalla xamal lim naroon pexem ay moo sottiwul c'est parce que li tax pexem moo sottiwul maanaam à chaque fois. am na complice ak benn ami benn xaritam boo xam ne dañoo jog pour torturer Lalla def ko lu ko metti moom si xelam jàpp na ne Lalla xëy na dafa topp seex ngir ci benn côté intérêt nga xamul ne Lalla dafa pare démb avant tey wax nga nag sa biir wax ne Marème Dial famille taxul ñu taxaw mais mu ngi fàtte yàlla yàlla ba mu ñuy bind ñun dañoo ñëw ñun kese ànduñu ak lenn olof nee na yàlla gémmiñ gu mu xar gu dina ci def lu lekk te ñàkk du la tax a saalit mar naan du la tax a naan fóotit te bu rëbbi na tijjee di nga rus sunu borom dana bind doomu aadama ñi mu defal leen seen dix ans ñu commencé gis seen warsak ñi mu defal leen soixante ans ñu commencé gis seen warsak ñi mu defal leen quarante ans. mais est-ce que ndax moom li ko yàlla defal xam na ndax yegg na fa wala yeggagul fa na maandu téye boppam gore man daal loolu laa am ci lu may wax di jéggalu nag balaa meew ma la c'est la première fois ma dugg ci yii di remercier yéen ñëpp merci beaucoup. waa maîtresse Marie maa ngi leen di ziyaare bu baax di leen ñaanal jàmm ak tawfeex ngeen yokk ba yegg ko ci barke Serigne Touba waaw fan yi moom seen série bi neex na trop trop trop parce que Lalla delsi na place am na fi mu nekk xam na ne moom mooy aawa pire mooy aawa buuru kontaan nañ ci lal kontaan nañ ci Lalla trop trop kontaan nañ ci yéen ñëpp di série bi am na solo macha allah yéen a ngi yéete. yéen a ngi won nit ñi àdduna waa Marème nag moom dafa ëppal parce que Marème dafa ëppal dafa ñëwoon dal ci kaw la di tëltële ci raj-raj yi dafa war a régler xam ne àdduna moom loo fii def rek ci lu baax day feeñ ci lu bon day feeñ moo tax vidéo xam yooyu ñu commencé ko di ko partagé di si jëtlante te ba muy seq ñooñu mu nekkaloon xamul woon ne àdduna dina dox ba mu sëy ci Cheikh Diagne wu jeeg Lalla ba pare kee bokk ak xaritu Lalla ñu xamante amitu waa maa ngi leen ziyaare bu baax leen ñaanal jàmm ak tawfeex nekk leen ci jàmm bu baax a baax awa daal moom macha allah. asalaamaaleykum ah man de moom film bi moom neex na torop torop torop waaw mais instant bi moom dafa dàq sax lem. ndaxte man lu ma gën a jaaxal ci film bi ak lu ma si gën a neex tamit mooy que ne action yi ñu toll action yi ñu toll mooy que ne maître kii euh, Lalla Lalla moom instant bi moom mën naa ne jël na ndam bi waaw ñoom ñoom nuñ ko waxee seeni biir cela veut dire que ne moom dina gagné ndaxte déjà bu xamalee Marème de rek Marème dootul jar dara ci kër gi te elle a parfaitement raison waaw ndaxte tey jii nii marraine nu doon doxalee rafetul lii sax dina yey jigéen yu bari ndax yow boo nekkee jigéen nekk ci euh, dëkk di def yenn façon yi boo fa amee jëkkër aussi doo jaar dara ndax kenn du la jox cër te et puis nii mu dundee ak Cheikh ba pare mu koy indi euh, kër kër kër jabar ji di nekk ak ci kaw lal bi loolu noonu yëpp rafetul mais lala nekk nit ku yeewu nekk nit ku dal nekk nit ku gëm yàlla aussi ndax lu mu bon bon bon bàyyi bàyyiwu am na kum ko doon booleel pour mu ko koy surveiller terewul lépp lu ñu def ñoom ñaar wala lépp lu ñu wax ñoom ñaar lala xam na xam na si dara mais da ko yàgg di bàyyi ci biir rek waaye nag yàgg na yàgg nay junju cheikh cheikh di ko fen góor yi nag ñoo noonu duñ doy duñu doylu góor yi ci boppam seen bët yi ñoo dul suur il faut ñu leen di xoolee ci côté googu waaye nag ñun jigéen ñi dañoo sonn dañuy def lépp lu ñu mën surtout nit da ngay nekk aw di daj lu nekk sikkër gi lépp lu bon lépp lu ñaaw lu ne di ko dégg ci sa biir néegu sëy ba pare nga wees nga nga jàll foofu noonu nga ne xëy na tey dina baax di dalay jaral ngay jël sa jëkkër di ko yóbbu fenn ñu koy ñaanal nga koy yóbbu fu baax di ko dugal fu nekk di ko sikk ak moom lu nekk ci lu baax pour rek yàlla ñëw pour rek yàlla dimbale leen yéen ñaar ngeen juboo léegi loolu bu waree dem ba war a defaru bu demee commencé bay jàppandu tuuti wala mu xam ne ba mu commencé yëg boppam da nga gis mu ne la fi ñokk dem jël nga xamante ne ëllëg bu ñëwee ci biir kër gi dalay sonal te amaana sax muy jëli indi defe naa ne aaw bi lu mu bon bon bon moo koy gën te moo ko tane dëgg rek soxna soxna la ndax ku ñu xes ba takk rek di nga doon soxna waaye nag eh, soxna tam dañ koy tànn ci anam bu dagan waaye di nekk ak moom di def lu la neex te nga ne danga am soxna am ak moom njaboot danga koy jox ceeb jox ko respect lépp looy def yow ku góor gi gis nga sëy bu ñu daganal ci jàkk dañ ko dañ ko war a xoolaat bu baax ngay dem sa xel chaque jour boo demee ba war a def lu bon war nga xool ci yàlla ndaxte yow bul ne góor laa rek lu ma neex laay def déedéet donte dangaa nekk góor am nga droit am ñeenti jabar ak lu la neex waaye tamit danga koy teg si yoonu siraatal mustaqiim mais am naa am naa euh, am naa droit am ay jabar rek ngay doxaan def ko di ko ci anam bu ñaaw daal wax dëgg fa neex yàlla man rafetluwu ma ko waaye daal pour l'instant xam naa ne euh, Marème Marème moom daanu nga moom ta xam naa ne laala tam wàccee na fi moom ba zéro wàccee na fi moo xaritam bi moom faanaa leen lool yow Mariam duma la faral ndax man mi di wax man dama fiir moo tax man du ma faral ki nga xamante ne day fekk ñaari nit juboo nekk seen biir kër nekk ci jàmm nga jéem a ñëw nga xam jàmm jooju nga ne jàmm jooju dina jeex di dugg di génn lu ne nga dugg si ba yàq seen diggante man ñooñu ñeewu ma leen man de bu doon man mii ma xam ne yow ku góor am nga soxna damay xool man bu doon man du ma neex duma la ko def man de lii ma si wax waaye tout cas film bi tam neex na trop trop trop Jalika nag jàmbaar la wuu ka man naw naa ko ci jigéen te dañoo foog ne boo sëyee ba tas rek dootoo dootoo dootoo dootoo nekk benn kii non ñoom dañuy nax seen bopp. boo sëyee ba tas du ñëpp a ñàkk fayda am na ñoo xam ne nag moom fa la ñuy jaaree bon lu leen neex la ñuy def mais am na ñi nga xamante ne moom franchement ay nit lañ te dañuy sëy ba tas aussi dañuy respecté seen bopp xam ñoom ñooy ñan xam ne nekkul lu bon moo tax aussi ñu génn ci sëy bi waaw ah en tout cas daal film bi am na sens yéen ñëpp maa leen di jaajëfal bu baax. waaw la waa la xew maa leen di nuyu di leen ziar. di nuyu waa groupe bi yëpp wax la première fois c'est la première fois may doog di participer nag boobu léegi maa ngi waaj pour dugg mais aw moon coordonnées yi mais maa ngi participer série de maîtresse d'un mari marié maa ngi wax si problème mu euh, kii Marème Marème na def attention bu baax parce que laal la fi mu ne nii moo copine am bi bëgguñ dara ndax pour génn ko si si kër gi rek la ñuy fexe fi mu nekk nii waaye nag na góorgóorlu moom am nit moomu bu soobee yàlla duñ ko mun a dara na góorgóorlu bu baax Marème Marème moom batante la. te nag bëgg naa sax te Cheikh bëgg na ko moom na góorgóorlu incha allah dina baax waaye maa ngi koy maa leen di nuyu ñoom ñëpp di leen ziyaara di nuyu waa groupe bi yëpp nag merci beaucoup. asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen waa lu xew TV ah vraiment seen site am na solo de seen site bi am na solo trop trop man wax dëgg yàlla daanaka yi ma gën a intéressé yëpp moom moom ci yéen laa koy seetaane quoi ci YouTube bi vraiment. am na solo trop trop trop mais tey sama commentaire moom mi ngi jëm ci mi ngi jëm ci maîtresse quoi waaw sama commentaire tey mi ngi jëm ci maîtresse wax dëgg yàlla film bi moom vraiment am na solo neex na lool lool lool lool lool su ma yeboo daal ne la fi nekk nii moom mooy meilleure série maanaam Sénégal moom benn daal minute ni moom benn minute ni moom comme li yaa booy boobu wax nag man mi sax am na ñu ma koy ñu ma koy jàmbat ñu baree baree bari dañuy concentré wu ci français bi de trop te xamuñ na français moom du du ñëpp ñoo ko dégg quoi du ñëpp ñoo ko dégg par exemple tey ni mu na ñoo xam ne ni bu ñuy wax en français danañ ko comprendre ne la amee ñoo xam ne nii daanaka bu ñuy wax français mën naa ne te bi yemoon si ñoom bi ñu wax wala foofu lay yem rek nga xam ne loolu abs euh, euh, tardement daal lay nekk ci ñoom quoi parce que duñ xam maanaam exact lii lii lii la la la quoi. moo tax franchement daal bëggoon nañ daal ngeen di seetlu ngeen di bàyyi xel ñeneen ñi nga xam ne it dégguñu dégguñu français quoi ngeen leen di bàyyi xel bu baax a baax a baax kilomètre bi mu wax dëgg yàlla am na solo macha allah comme lii sëñ boobu wax sànq it ci affaire u couple yi nga doon xam ne maanaam comme Marème ak Lalla niñ commencé woon ak euh, biñ dikkee ba ci digg bi maanaam niñ nekkaat ci jàmm xam nga toog di waxtaan affaire yooyu loolu vraiment day defar ay couple yu buñ demaatee ba génnewaat baneen jikko it xam nga nit ñi bëgg leen a royaat foofu it day day yàq daal vraiment bu ma sañoon daal ñu concentré wu ci ci ci ci dessin bi quoi au début commencé woon baaxut mais biñ dikkee ba ci milieu bi vraiment ah, nekkaat boobu rafet na trop buñ ko yàq waaye macha allah am na solo wàllu xew TV nag yéen moom ca kaw ci kanam ci lu baax rek barke Serigne Bamba da ngeen di dem de kenn du leen téye asalaamaaleykum waa Lu Xew TV maa ngi leen di bëggee di leen ziar li am contentement bu baax a baax a baax macha allah di sàkku ci ñaan man la Aïda Wale Diouf seen mbokk fii ci Saint-Louis macha allah waaw série maîtresse d'un homme marié macha allah série bu ma neex la mën naa wax ni problème yi ci daje yépp moom la nit ñi di dund actualité la donc nag man laal la daal laa ci xaw a mere la daal moom wax dëgg yàlla ni muy doxalee moom neexuma moom. parce que tamit yow nan nga mën a xamee ni yow sa jëkkër day doxaan nga jàpp ko di ko topp xam nga di yër di di di yónni borom moto boobu di ko fay xaas mi di la toppal sa jëkkër benn jour sax euh, xaw nañ ko belee sa foofu benn waajooju fu mu doon xeexal lépp moom rek la xam nga di topp sa jëkkër di ko def man daal ay affaire topp yooyu di topp topp jàpp sa jëkkër di ko topp fu mu dem nga yónnee ndaw ku ko xool dugg na fii heure bi la dugg fii heure bii la génn ñu ngi dem place sangam yooyu jéeg pour man jéeg bu mat ku am conscience tranquille ah du ko def sa kër la bàyyil ba guddi ndax mag ñi loon noonu lañ ko daan lijjantee mag ñi daawuñu coow bëccëg waxtuma laa nekk ci mbedd di dox wala ñu nekk ci biir kër yi di rung-rungi ma sàmba xam ma dem ba xam bu guddee bu suuf seddee lépp ci lañ koy lijjanti lu mën a sot sotti lu mënta sotti ñu xoolaat neneen nu ñuy def beneen solution bàyyil ba guddi nga ne ko nijaay dama laa soxla ni ko man kat su ma sañoon am na yenn nga xam ne doo am na yeneen nga xam ne doo ko def te am na yeneen nga xam ne rafetul sa der yow kilifa nga boo bëggee takk dangay takk moo gën yii ngay def kilifa du def yii lii bu ko nit ñi xamee wala bu ko nit ñi gisee kenn dootu la naw boo bëggee dangay takk indiwaay waay yii kenn du ko def xam nga sa jëkkër fa lay jaaree naw la ndax dana xam ne jigéen bu baax noonu lay noonu lay kiyee waaye topp sa jëkkër topp ko topp ko ba xam ne mu ngi doxaan nga topp ko yónni nooraa mi naan ko demal neel tataali yeeg demal neel demal jël téléphone am ak jëlal lii jàpp xale bi di ko géeloo ay rôle yi nga xam ne moom ci boppam moo yàq doomam rôle nooraa amul benn éducation bu baax lu ko neex lay wax ci kër gi lu ko neex lay def toog ci biir nit ñi di wax papaam ak yaayam bu ndee wax munu si cabax dugg laala du ko arrêté du ko def dara dégg nga maanaam tamit rôle boobu muy toog ni doomam defal nii ak defal nii ak defal nii rôle bu ma neex la parce que doomam bu ko ndeyam mënta lijjanti ci biir kër tey tàntaam la war na koo mën a wax defal nii ak defal nii ak defal nii du dëgg waaye nag euh, ci li ma gën a metti mooy aawo yi nañ bàyyi luñ xam luñ xamal ñaareel rek yow aaw ba nga xam ne buñ la takkalee wujj rek yow yaa ngi gëstu di xool say paaseem ak dégâts yi mësoon def ak loo ko mën a xamal rek ba kafte ko tée def ko arme nañ bàyyi yooyu wujje du bokk wërsëg pour man bokk bëgg-bëgg la li bëgg moom la yaabuy bëgg bu ñu kenn rey dégg nga de nañ bàyyi yi ñuy def yooyu ñuy def buñ xamalee dara rek jàpp ko téye def ko arme gis nga fii kenn ku nekk am nga passé bu ñu xam ak bu ñu xamul bu nëbb ak bu suulu bu ne fàng la moo fi am waaye kenn ku nekk am nga passé nañ bàyyi yooyu ñuy def may ñaareele aafiya ñun doonoo bëgg a sëy sëy rek moo ñu tax a jóg nañu ñu may aafiya waaye gore yi ànd ak aawo yi fii ñu di la xeex di la def li di la def naa mais Marème nag mooy jeeg bu mat gis nga moom mooy jeeg bu mat barke yonent bi mooy jeeg bu mat daf leen a xam ba xàmmaaral leen mënuñu kaa def lu ko jaaxal mënuñu kaa def lu ko jommal mais nag leen rek laa koy digal comme que Lalla ak Fili xaritam boobu ñu ngi koy fexeel ñaan amidi nañ koy jox vidéo yeeg affaire yooyu ñu publier ka man gis nga bu ma defee daga ak toj-toj maa fi gën a sëkk lu ma mën a def ma su ma ko mënee lijjanti si suuf mu sedd moo gën moo gën laa wax de mais bu ma xamee day jëm kaw bu la kenn jur sa jëkkër bu guddee nga woo ko mu toog yow dong ak yàlla yow dong ak moom ak yàlla. ngeen waxtaan li ngeen waxtaan ni ko man kat am na lu ma dal mun la ah ngan ko man kat sama paase nangam ak nangam laa ci defoon man ak Mame Matar nangam nangam boobu xamaguma la woon yàlla nag dogal na tey ba seytaane xam nga jeq na lépp am na waa ji fi ñëw nangam ak nangam kii xam nga rek expliqué ko lépp ci nopp Cheikh Diagne mu dugg ko mais bu fexee ba laa la jiitu ci noppam ak xaritam boobu nga xam ni ñett ñett a ko wër ñett yi koy xeex ñoo ko wër na bàyyi xel loolu instant li ko ci mën a génnee mu dem ci Cheikh Diagne expliqué ko xam nga njëkk njëkk leen ci Cheikh Diagne expliqué nga xam ne léegi Cheikh bu yëgee problème boobu cas mën naa bañ a garaaw mais kanta buñ bàyyee ba mu yëg ka bu demee naan ko léegi li dafa naan ko lu tax loolu ba mu amee waxoon ko woon kan man duma sa kilifa loolu nan la mën a amee ci biir kër ngeen koy ngun-nguni te man mii kilifa gi duma ma ko yëg kon yow respecté woo ma wala lijjanti woo ma wala faale woo ma gis nga jeeg dangay nawloo sa jëkkër sa jëkkër faydaal sa jëkkër man de du ma dugg lu sama jëkkër yëgul suba ba ngoon jot duma ma dugg li sama jëkkër yëgul du ma dugg muy natt ak muy lépp balaa maa def wax ko balaa maa dem tàgg ko balaa lu lu ne sama kaw ba sama suuf lépp moom la damay waxtaan ak moom jeeg bu baax noonu ngay def defal sa jëkkër xarit lépp looy def naka xam lépp looy wax naka xam lépp looy def na nga waxtaan ak moom discuter ak moom bam ni la lii ak lii ak lii loolu mooy tax ba léegi fu seytaane mën a jóge dikk naan sa jabar ji moo def li moo def laa moo def laa mais kenn ku ne xam nga ku xam xam nga kala yar bu bu boobaa moom moom mën na laa juger ndax dañ ne man sama jabar defu lii ak lii xam naa ko mais nëbbatu ba sa jëkkër di ko foree feneen dikk naa la laa nga naan ko damaa xamoon ne xaw ma ne woon su ma xamoon ne damaa xam ne su ma ko defoon su ma la ko waxoon problème bi mën naa dem ni wala bëgguma woon problème am luy loolu sa jëkkër la moo la indi ci biir kër gi te da ngay xam ne yàgg naa ak aawam nag loolu ngay xam yàgg naa ak moom de. boo def def loo ba yooyu yëpp am te mu taxawal ni man laa la xam naa ko du def li du def laa te laal la band bu làqatu la xam nga Marème moom ñëpp xam nañ dafa vulgaire dafa capable moom lu mu bëgg a wax la koy wax lu mu bëgg a def da kay def gis nga ni mu diggee ci néegu Marème ni falax bunt bi taxaw wax li muy wax ba mu nekk mu mën a ni ko attention xoma au nora ah, la mort pour arriver xomal nag lan dem yoonam xam nga moo koy xamal ne moom dafa vulgaire te pare na na ci côté bépp pare na ci côté bépp nag pour defante ak moom ci xeetu defante boo boo bëgg a gis ak boo boo nam a gis pare na pour defante ak moom laala nag instant yi moog fili yaakaar naa ne dinañ am defet dinañ am defet ndax Amidou nee na euh, photo yi duma ma ko partagé view Marème du ma ko yàq et tout ak nangam fili dig na xaalis som mu ni ko carrément nangam ak nangam xam nga nag mais gis nga nit boo ko yéene yéene ko lu baax gis nga boo ko yéene daanu ci pax boo fexee yow yaay faqastalu daanu ca ba néegu néegu néegu mbon moom borom a cay fanaan macha allah kontaan naa. asalaamaaleykum waa group bi waaye maa ngi leen di nuyu leen sant di leen gërëm voilà ci seen ay commentaire ak yooyu yëpp boobu ba léegi daal joon naa ci dugg trop euh, ça va faire en plus deux mois mais euh, déglu naa commentaire yëpp te et puis bi maa ngi koy koj tout le temps sur internet sur euh, YouTube donc voilà. li ma amoon pour wax daal mooy comme li ma leen waxoon ci début bi rek voilà fii série bi ak si nii yëpp waxoon naa leen ne fii lii lay egg si parce que Marème elle maîtrise rien du tout waaw elle maîtrise rien parce que là en ce moom diggante moom wax Lalla parce que Lalla dugal na ko ci gamme boo xam ne fi mu nekk nii elle maîtrise plus rien wala mu jéem a toppatoo Cheikh doo ma wu ci Cheikh def ko mu ngi jéem a ay affaire fayonte lay lay lay lay xalaat ak yooyu dugg pour jéem a indi problème mais li mu waroon def rek mooy muy concentré wu ci Cheikh wax ak Cheikh jéem a lijjanti problème bii exposé wu ci kanamam que muy wan laal la ne dafay am lu muy nëbb ak ay li la déjà laal la naan ko xam na ne daf koy nëbb waaw donc léegi donc loolu laal mën na ko def arm mais du ko def arme parce que su ko defee arme kon conscience su Cheikh lay changé. Lalla du ñëw rek exposé ko nii Marème muusul su muusoon moo gën a tey ne Lalla du dem wax ko Cheikh du ko ko wax daf koy menacé nii mais du ko ko wax parce que su ko ko waxee daf ko doon xam kon yàgg da nga lii rek nga bëggoon da nga doon wut lu yàq sama diggante ak Marème te loolu la te loolu échec gu Lalla la voilà moo tax moo wax leen ne waxoon naa leen ne elle euh, est pas si meilleur moom euh, Marème parce que bu deful ndànk moom mooy perdante bi kooku waxoon naa ko bu yàgg depuis ci début bi xamul nu muy waxee ëppal na ëppal goo xam ne du du analyser dara balaa muy def xoolal dèjà Jalika ni mu def Jalika ak copinam boobu copinam boobu mu jaral ko muy xaru dèjà faq na caax yi foofu laa lay wax nii <laughs> mu ramane leen lan la lan la tekkaara mooy tax mu mu nand mu xoolal mooy tax mu décriral nit yi nan la Marème mel parce que il suffit mu wokk benn yëf rek mu elle sort ses mu génne ay si défensif lay nekk tout le temps nit kuy nekk si défensif nag ah, foo ko fekk am na lu muy nëbb donc ni nëbb nag moo génn nii moo génn te bu deful ndànk dina ci am problème ak Cheikh te bu ko exposé Cheikh Cheikh dina ko ne xoolal takkal say bagaay nga xam foo xam nga jëm fa ak sa lii waaw maa ngi dégg ci ay commentaire nit yi wax naan am na ñu naan daf ko war a waroon jël exposé problème bi yëpp Cheikh su ko exposé Cheikh ah. rek am problème te tekkaaral gi muy tekkaaral nii ah, su ne tekk bañ ci wax bañ kii laal la moo nar a am problème parce que laal ak copine bi bu ñu gasee ba mu xoot pour yaakaar ne Marème la ciy dugal Cheikh day taxaw fee repêché ko na repêché Marème na leen wax ne yàq sama diggante ak Marème moo leen tax a donc du leen jox raison quoi. voilà problème bi yëpp loolu moo tax ne la ma ne leen Marème parce que analyser wul situation bi parce que là elle réfléchit plus li muy xalaat ni yëpp xam nga lan ay affaire vengeance lay xalaat elle est sous la défensive donc du coup bu deful ndànk rek coow dina am daal te coow buy am connerie bu nga la def ci biir kër gi dina jéem a attaqué Noura te euh, boobaa Cheikh lay jot ko voilà waaye nag di leen gërëm di leen sant parce que am na ay commentaires yoo xam ne aussi tam dañuy wax ñaareel yi aawo yi bàyyi leen aawo yi parce que ñaareel yi leen tax ay affaire yu defante. defante taxul ñu wax affaire takk ñaari jabar ñaari dañ ñëw pour buuxante rek dañ yaakaar ne buuxante bi yomb na ma ne la ku wóoluwul sa bopp aw bu ci wóoluwul sa bopp yaa fi toog di defante waaye ku sa ñaareel bu ko faaleek ñaareel gis ngeen laa ni mu tege woon mare loolu koo xale bu xale boo ko def laa la ne foofu du fa toog parce que day def connerie dina def faux pas moo tax xam ne leen affaire takk jabar bu fekkente ne takk jabar dañ ko takk ay wuj takk ay jabar yu bëri dañ koy def pour affaire defante mais franchement Sénégal jël na jël na ndaare daal parce que loolu taxul ñuy wax takk ñaari jabar ci listam waxuñu ne takk ñaari jabar pour affaire wu defante soo mënul dem si benn dañ ne nga mën nga def ñaar ba ñeent lañ la wax waaye du ay affaire wu defante mais defante du woon di jàmm si biir gi du woon di jàmm gis defante. gis na waa ji si boppam biir bi dina dem laa la wax ba kenn xamul fu muy toll biir bay gudd parce que defante yooyu moo koy indi man ni ma comprendre affaire defante ay affaire wujje yi loolu la en général affaire bi du mujj fenn lu dul ay ay ay bêtises ak ay kii lay indi ay problème lay indi suñ demee ba xale yi màgg ak jàmm sax ba seen yaay toog seen papa toog fekk ak seen ñaari yaay ak papa yi fekke seen njëriñ loolu yàlla. parce que majeure partie bi yooyu yëpp après du om fin du om du am fu muy yem parce que day day dem rek day di jox kii di dem si kii la jox kii dem si kii la jox ñuy defante defante loo pour man defante bi li ci laxasu moo bëri voilà di leen gërëm nag leen sant <laughs> sa xam naa ne boobu laala ak laala ak Marème ñoom daal ñooy ñooy ordre du jour yi daal parce que ñeneen yeneen côté yi sax yeneen comme Jalika wala ak euh, Moustapha ak ak kii ñoom xam naa seen seen côté dina évoluer noonu daal voilà mais affaire u Marème ak euh, wala daal foofu daal euh, jaxasoo bi nekk daal te laal tekk gi mu newoon tekk woon naa leen doful laalo doful xam na li muy def du loolu moo ko li ko dofloo du loolu elle était perturbée rek lii yëpp waxoon naa leen ci ay audio yu ma defoon ba pass di leen bu muy wax ak docteur naan docteur bi est dof naa ko yooyu doful woon dara jotu ko dafa uti ji woon doole rek dafa recul la defoon pour xool fu muy teg tànkam te ba mu retrouver fu muy teg tànkam anamul génnul ñibbi si këram uf doomam nekk yam ci appartement am waaye léegi même vol affaire vol bi ci am noonu affaire bijoux yi ci amoon yooyu yëpp jéemul accuser sax Marème parce que xam na ni Marème doful dina jàpp ko bay def loolu keneen ñeneen xëy na xelam si ñeneen la doon nekk ñuy ñuy détourné conscience am si Marème mais Marème elle sait que Marème elle a rien fait te xoolal jàpp na sàccam te bu ëpploon comme Marème nag ñëw na ne ko pion Cheikh mu indi problème tu vois donc euh, moo tax teey baax daal Marème dafa teeyul su teeyoon laa lay wax ne Marème mooy mooy mooy gagné laa la wax si laal laal la ci Cheikh mais dafa teeyul elle ne réfléchit pas lu mu def retourné di ko nettali xarit bi gis nga xoolal xarit bi taayee na bu yàgg. xaj bi nekk si rek su ko dóoree fii tey dóor ko fee su ko raayee gauche raay ko droite sànni ko fleur dóor ko ñaari kaani voilà donc moo tax ay affaire xarit yi sëy daal man franchement sopp ma ko daal daal ku am sax sëy daal sëy ko waaw nga ngay ngay nga approché sa famille mu leer na ñoom dañ la si wax loo xam dina dina franche moom moo si moo si moo si jàmm ji daal mais pas ay euh, franche boobu franchise moom sa koo bokkal ndey waaye wala ko bokk jege dëgg moo la ko mën a def moo la mën a di la wax lu leer nañ wala nga di la réfléchir loo mais ak xarit xarit intérêt lay xool fu tooy mu tag voilà di gërëm di leen sant xam naa ba beneen yoon ba si beneen euh, épisode di ñaalal ñu fanaan ak jàmm